am beneen xalaat waaye dina buggaan nag jàll na à côté euh, euh, ça. bon xam nga bu dee ci saak bi sax man am na nu mu ko doon attaqué. Mm-hmm. doon na am sens. Mm-hmm. parce que quand même aawo bi dem na. man fan la moo première dame man laa dul wax damay wax aawo. <laughs> Ah, euh, wala làkk wolof moom dafa am mm-hmm. solo. buñ nee aawa yaa ngi cay dégg awa mm-hmm. te lu tax ngay wax ñaareel ba naan ñetteel te waxoo benneel mm-hmm. kon yaa ngi gis ne wolof daal am na yàgg naa kii <laughs> mm-hmm. comme kooku dem na ñu gis saag bu mu yóbbu made Sénégal man foofu la affaire bi nekk ak nga amoon kook ñu may la kook wala nga jënd fals mm. qu'importe comme accessoire bi am nañu ay sénégalais yu koy def surtout jëwriñ nga xam ne ci wàllu artisanat lay kii dañ war a promouvoir mm-hmm. te ñoom vitrine lañ comme noonu nga ko waxee mm-hmm. euh, président Diomaye suñu yëf la mm-hmm. ñun ñoo ko moom ay soxnaam it wax dëgg yàlla ñun la ñuy représenté te dama leen di sant le fait que nekkuñ fi di def ay fondation wala di def ay yëfi tappale yooyu dama leen ciy sant mais quand Euh, soxna si ci desit wax dëgg yàlla am ci wàllu wi made in Sénégal daal yàqul dara. Mm-hmm. waaw ak lu mën a am mooy. mais yow yaa sa xama saa dinaa la jox benn exemple. Mm-hmm. xam nga je fais les foires internationales. Mm-hmm. les foires internationales. mais saa yi ñuy defaree village artisanal fii. avec des pots croco. Hmm, ak cuir bi ñuy traité Sénégal. bu ñu demee ci foire internationale bi day gën a original. moo gën a original mooy original. sax dégg nga wax ji. bien sûr saa yi ñuy def village artisanal fii. Mm-hmm. di ko ak avec deru béy bi ñuy traité fii. Mm-hmm. wala ak peau de crocodile bi wala peau de serpent bi. Mm-hmm. bu ñu demee ci foire internationale yi moo gën a cher originale boo duggee fii village artisanal moo gën a cher original. am na fi yenn xeetu peau yoo xamante ni sax fii. léegi par de par des raisons de protection des animaux. dañ ko interdit. muy ay croco ay peau de serpent ay mbëtt mm. tu yooyu dañ ko interdit. dañ ko daan utiliser ay dal saak yenn accessoires yi mais kooku c'est la haute gamme. Mm-hmm. kooku ñooy chinois yeeg dañ ko mën a am. tu vois ay ay ay ay ay ay geenu ñay. waaw poil poil d'éléphant dañ ciy defar bracelet. Mm-hmm. waaw. musoo ko dégg. mal malgré ça malheureusement que village artisanal dañ ko réserver tubaab bi ak touristes yi sénégalais yi duñ dem village artisanal. Mm-hmm. boolewuñ ko boolewuñ ko seen programme dañ ko ci war di boole. pourtant président Diomaye dem na fa. dem na fa xoolee saagu mm-hmm. aaw bi. Mm-hmm. loolu noonu bi mu ñëwee dañ ko apprécier man su doon sur ce point la ko taxa parce que benn. nga sol fals mi ngi wane ne yow. dangay ngay sol cere mooy parce que benn xeetu jubadi mu nekk original ah. voilà mu nekk mu nekk original seer na bu seeree yaa ko moom kañ la kañ ko ko jëndoon ah, parce que yaa ngi wan fee loolu du problème mm-hmm. Mm-hmm. léegi nag balaa caag li gën a yomb doon comme yow seen dund ak yooyu yëpp nit ñi dañ ci bàyyi xel mm-hmm. dëggantaan comme loolu la li gën a gàtt na day jar vingt millions mais na doon lu Sénégal yi defar te dégg naa président France bu ñu ko falee nii wala président kii costume yi ñuy sol. garde robe bi si saa garde robe daal la ñuy lu gën a bi gën a garaaw xam nga mooy lan. big mm. big bi. Mm. Mm. waxuma la montre bi de. Mm-hmm. montre bi moom dafay bokk ci. la ñuy sowañalee nekk mm-hmm. même big. Mm-hmm. yooyu yëpp gars yi dañ koy xool. analyser ko. parce que il y a derrière ce qu'on appelle l'industrie de la mode. te xam nga fi mu toll nii. pour développer le Sénégal pour moom am autosuffisance. Mhm. ñi ngi investir ci agriculture bi. waa xanaa xam nga ne agriculture bi artisanat bi moo koy ci biir artisanat bi la bokk. lay dugg bien agriculture bi ci biir mhm. artisanat bi lay dugg. Mhm. parce que agriculture bi matière yi ñu fa defar yëpp. buñ ci jëlee li ñu ciy lekk. li ci des yëpp artisanat bi moo koy recycler transformer ko def ko de œuvre consommable. consommateur. donc l' industrie de l' artisanat bokk na ci man bu fekkoon ne dama am man lu may wax. conseil muy que xam nga Sénégal liy génn ci xaalis ci Sénégal dafa bari. Mm-hmm. ci lu jëm ci tissu. Mm-hmm. parce que amaguñu auto amaguñu autonomie six cent et quelques milliards. amaguñu ci wàllu tissu textile. loolu dafa bari. dafa bari six cent et quelques milliards il faut mille cent trente huit ci wàllu. denrée alimentaire est-ce que yaa ngi dégg sax léegi la gab bi ridiiru mais am nay jamono. soixante milliards la. Hmm. te yow boo xoolee. Sénégal ba muy am indépendance tubaab bi wàccoon na fi lu toll trois industries de tissu. ah, hmm. ah boobu de am na ci boo xam ne de Macky Sall jaay feeraay la ci xalaatoon sëriñ boobu lànk rek ak dëgër bopp waa ji mbugg mu sell. wax dëgg. est uh-huh. léegi yow man moo tax. sëriñ Maodo a na ba. <laughs> ba usine bi rëccu Macky rek. daa wax na dëgg. non ci boppam. parce que intérêt sénégalais la tamit. li di def bi ci xeebul mbay. non non Macky. bi ci xeebul mbay kay Macky dafa doon jaay Sénégal dem yoonam. Macky moom ci seen bi doon gouverner. da ko doon miiras. muy muy leader oh. leader entrepreneur leader national yi. ñoom ah, xanaa po ndar bi sax bi ko Wade dindee bañ changé ko bi Wade bi ñu koy waxee feeraay Wade duma ko laal bàyyee ko Bamba Dieye. Mm. non waaye dafa ñàkk kii mais ci Bougane quand même. dama xamul ndax bàyyi ko xelam démb démb bi muy wax bañ indil ko lu ko waa ji indil ah doo nangu mukk dafa am loo xam ne nga xaw ko nangu sax dafa lay dimbale. dëgg la de surtout bi mu nee ko nawet bi ak li am daan na fi taw ni mu daan mel mais ren gis nañ ànd ak li muy taw mu ne ko non taw bu am doolee fi amagul maanaam Bougane. ci waxam day ñaan yàlla <laughs> maanaam taw bu. bu bu dafa am xam ne oh, dafa am lu mu ignoré quelque technique ay fee yu ndaw man dama ci def maa ngi doon xool waa yéen amoon ngeen ko fii ngi Dakar ñun bi ñu demee côté parcelle xam nga dafa am luy jàllale ndaxu taw bi mm-hmm. muy ñaari canal dafa am canal bu traversé ci digg tali bi boo xam ne mooy traversé ci digg tali bi mm-hmm. boobu mooy yor eaux usées mm-hmm. maanaam ay ndoxu foos yeeg ndoxu yooyu kër yi ñuy raxaseek yooyu fa lay dem mais eau pluviale ci wet gi mooy ci teritoire bi yow fi ngay jaar mhm. am na fa benn tuyau quatre cent mhm. wala trois cent mooy nekk ci suuf mhm. am rigole boo xam ne regard boo xam ne dafay dem un mètre cinquante daal di wàcc am bu dugg nii am bu lëkkaloo ak bële boobu ci fi ma dem ci parcelle da ngay dem ci boo xam ne da ngay fekk day fat ba wow kong am boo xam ne bu xawee jeg rek muy sax ñax ndekete day fatt ba yéeg léegi loolu koy fat boobu mooy jàllale ndoxu taw bi mhm. yow bu dee sa kër voilà yow bu dee sa kër dafa nekk foofu bu mhm. fattee foofu taw bi day ñëw nga wale mhm. ah, waaw sa kër léegi bu fekkee foofu am na ndox kii euh, tuyau bi sekkart yow nga xam ne ñun dañuy doon dem danga boo yegsee am na yoo xam ne pikk ngay jël dóor ba mu nooy ñu koy gas ak peel ba jot kii ba boo ko jotee sax da ngay loo gën a jege foofu mu commencé di tooy nga jot tuyau bi ñu fomp ko ba mu set ñu woowaa koñ bi sensibiliser man def naa ko. Mhm. waa kër gi nekk foofu. et c'est important ñëpp war nañ ko def ne leen yéen. mën weesu tey mooy tali bi fu ngeen gisee te même bu dee point nord la wala nangam mu tàmbali di sakk sécurité leen. Mhm. ay fee yu ndaw la. Mhm. parce que boo ko sécurité mooy tax yow. seen avantage sa avantage la. mais yu technique yu ndaw yooyu yooyu ñu xeeboon nga xam ne mooy premier jour mbale ma. nit ñi liñ ci sécurité xam nga même bu fekkee ne. nanga loolu am na lu mu ci mën a yóbbu parce que bu jaaree ci foofu jaar fa mu war a jaar day mujj dugg ci régor léegi loolu amu fa mu inondeel kër yi. Mhm. gestes yooyu bul ko xeeb. Mhm. loolu bu fi amul woon mais Macky Sall ba daaw ba daaw daaw jéeg inondation bi su masaan a taw. dafay yàgg. Mhm. ndox bi dafay yàgg. Mhm. même bu dee taw nii nga xam ne affaire yi mi ngi am kon tey nga xam ne suñ tiwo yu à la place de tiwo 400 kon. Mhm. waroon nañu am 600 ñu defaraat mbir mi kon ni nga gisoon ñu doon def Medina ak yooyu. kon da ngay gis ne loolu am mais malgré loolu. geste bu ndaw am na boo xam ne mu daal ne euh, yi ñuy kiire est-ce que Touba ki eh, Touba amul assainissement bi Ndakaaru am. je suis désolé. beneen bi mooy euh, tey li jàmp moo fi am yéen ngi doog liñ mën a def rek mooy def ay pompe bu fekkee fu mel ni tuubaa teg mhm. pour muy jàllale loolu am na mhm. camion yi ñu ngi am bu dee Ndakaaru ci première jour setal bi nit ñi investiru ci nga fexe ba nit ñi jëlal ko seen bopp mhm. man communication bi ma ci doon def si waa koñ boobu loolu bu ñu ko jëfee ah dew ma fa de waaye nam daan mel melu nii parce que loolu gest bu ndaw la léegi nag après suivi bi mooy am suivi bi léegi waa koñ bi ñoo koy defal seen bopp léegi da nga gis sax koo xam ne dafay jël saako soble. Mhm. dem da ngay gis booy dañuy jël saako soble. Mhm. dem teg ko foofu nga xam ne kuy euh, sotteeti ndox. Mhm. foofu nga koy sotti mu segg te foofu sax du pour sotti ndox. maanaam bu dëgg dee dëgg rek. ci réegol bu mag bi nga koy def problème bi mooy léegi kër yi wala euh, restaurant yi wala fenn. ci marché yi dafa am foo xam ne moom mooy dem ca tuyau central maanaam ndox yooyu fi ndox taw di jaar. yooyu yëpp waru faa dem. kon mën nañoo dem ba ëllëg tey da nga gis ku yorati foofu ñëw di fa tuur ñu ne la doo ko fi tuur. Mhm. te muy dëgg. wala woo service d'hygiène mu ñëw taxaw te muy mhm. dëgg mais nit ñi xamuñ lool askan wi léegi boo leen yeewee voilà mais communication mhm. la gouvernement bi di def. mu yegg ci askan wi def ko seen yëfi bopp. kon léegi kon booy tabax bu njëkk këru sikaay wala am na côté boo xam ne day jug nii. ñu yëkkati ko nga xam ne booy raxas fa ngay raxasi mhm. mu dem directement ci tiwo tiwo bu mag bi mhm. mooy eaux usées yi ak yooyu mhm. mais eau pluviale fi muy dem loola képp a fay dem mais yooyu ay technique la yooyu jox nit même opposition mën na ci ànd maanaam tibbu tànk googu muy wax yow booy tibbu tànk li ngay tibbati tànk nit day fekk mu juum mais bu ñu yegsee ja moment bi ñu toog waxu encouragement nga war a andi. Mhm. demaat naan ay. dem foo xam ne dem foo xam ne. ah yow yaa ngi euh, dem pour jëmbat benn garab. Mhm. mais Touba am projet naatal Touba. symbole symbole lañ xam voilà voilà projet non nekk ci li ko war ba commencé di am résultat te Touba boo demee. yaa y a quatre ans ci ginnaaw. Mhm. mais bi Wade di dem di siyaare ji sëñ Muntaxa. Mhm. ba naan ko autoroute bi comme mag Macky def na ko fi. Mhm. nit ku am ay at yu li mu naan dañ ko war a jëmbati garab man bu ñu ma joxoon sax projet boobu nangam nangam man foofu dama ne bu fekkoon ne ci jamono boobu la sëñ bi euh, santoon Touba ca kanam jamono yi nu nu garab yi mel. fekk na mu naat bu yàgg bu yàgg voilà naatal Touba. parce que autoroute autoroute autoroute ila Touba bi boo xoolee. Euh, autoroute bi jàll na. mais mm. amul benn kii de secours wala stationnement wala bu la dogal dalee ci yoon bi fooy dafa mm. vide quoi mm. wala bu la parce que tey jii euh, pour sécuriser ko saa dagguma la ah maa ngi non non non non euh, loolu kii la <laughs> garaaw yow maa ngi vraiment profiter sax pour que parce que temps yi dafa am benn conflit bu ndaw boo xamante ni